من ينصر القلوب والسرائر دون الذي منها يكون ظاهرا ثم صلاة مع سلام يتبع على الذي فينا حدا يشفع من بفدائل الهدى تحلى وأرس إلى الغدا تخلى محمد الكاشف عنا الخمة وآله وصحبه والأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي M-Mod Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ñoo leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di leen jéglu bu baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen nu fas yéene dikkaat insha allah taala al karim tey jii ci sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu laayanti biir la ngir xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ci adiinu nasiha lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi aimati almuslimin wa ammatihim mu mel ni sunu jataay yi nga xam ne moo paase noo ngi woon rekk ci laltaayul jataay yi nga xam ne mooy yóbbalu soxna yi waaye yóbbalu mboolem jullit ñi ci dégg dëgg xam lan mooy euh, dayub jigéen comme nen ko waxe woon bi passé na arab bi waxee li kulli shay'in ya'uddu ala usuliha bala nga xam dëgg-dëgg solos mbir wala bala nga xam dëgg dégg mbir da ngay delluwaat ca cosaan la boo delluwaatee ca cosaan rek di nga xam lii nga xam ne moom nga teg sa kanam dëgg-dëgg solom ci jublu nag ci jataay yi mooy uh, wàllu jigéen ñi ak la aju ak lay biir mboolem jullit ñi mu mel ni uh, commencé woon nañ ci xam le digg dëgg jigéen laata lislaam bi ñëw melokaan yi nga xam ne wala ne dayo bi nga xam ne ñoom la arab yi tegoon jigéen ci suufeel ko waaye doye jël ko waaye gannaawal ko ñàkk xam dëgg dëgg dëgg dëgg jigéen ñëw na ne tam bi nga xamee ne lislaam dikk na teraanga ji nga xam ne lislaam noonu la terale jigéen ak wàccuwaay wi mu jox jigéen xam ne jigéen moom mooy ki nga xam ne su baaxee rek société bi yépp mën naa baax doon ki nga xam ne moom lañ wax ne mooy ndayu mooy l'école bi nga xam ne moo jëkk ci yar doomam waaye def ci moom jikko joo xam ne jikko ju rafet la jikko ju tedd la jikko yu lislaam ba nga xam ne fu mu dem rek wala fu mu nekk rek mën a defaree nit ñi mën a jàng ci moom moom jigéen kon mu mel ni sunu jataay bi paase noo ngi woon ci maandu gi nga xam ne lislaam maandu na ko ci diggante góor ak jigéen ci yemale leen ci ki nga xam ne dafa jëf aw yiw wala mu jëf bu yiw wala mu taxaw ci tànki digle aw yiw tere aw ñaawteef ne leen ci suñu su subhanahu wa taala dig ci aw yiw ci jëf lu baax wala mu dig leen ko ci mbugal ki jëf safaan bu baax ñoom ñaar rek ñoo ci ñoo ci yem mu mel ni it eh, jataayub tey bi insha allahu taala noo ngi dikk bëgg a dugg ci dëgg-dëgg jigéen ji nga xam ne mooy jigéen ju baax ji nga xam ne boo ko takkee man nga am eh, njaboot ju baax comme ni alquranu karim waxee auzu billahi min alsheytan irajim walbaladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusa la yaxruju illa nakida kazalika nusarrifu layaati li xawmin yashkuruun dëgg dëgg jigéen ju baax mooy ki nga xam ne soo ko amee mooy tool bu naat bi nga xam ne boo ci defee saw jiw bu waamee suñ boom subhanahu wa taala dikkee bu génnee dana nekk gàncax gu naat lool waaye ab safaanam mooy ki nga xam ne dafa ji ci suuf su bekkoor kooku moom laa yaxruju illa nakida kon jigéen jooju insha allah taala euh, foofu bëgg dugg tey ji melokaanu jigéen ju baax digg digg mooy kan nga xam ne jigéen ju baax boo ko takkee mooy ki ni wax ne al mar'atu ala hadiyatan xassa biha lah wa rajulu kàddu gi nga xam ne mooy gi gën a rëy gis ndoom subhanahu wa taala jagleel góor mooy jigéen ju baax al mar'atu nisful xayaati in ahabbat zawjaha wax na ne jigéen mooy genn wàllu dund ki sun jox jigéen ju baax jigéen ji wëlbatiku sopp borom këram yàlla tax nee kooku mooy genn dund wàllu dund ci ñeel ñeel góor gi almaratu nisful xayaati in zawjaha del waxat ne almaratu kawkabun yustadaa bihi rajulu wa duunahu yabiitu fi zalaam nee na jigéen ju baax digg digg dëgg mooy bitiw bi nga xam ne ci la góor di leerloo ci la góor di sàkkoo ak leer mooy leeralal góor gi su ko amul rekk nag fanaan ci néegu bu moom jigéen moom góor wax ne wal maratu hiya lati taqudu rajulu ila saada jigéen ju baax dëgg dëgg mooy ki nga xam ne mooy ommat góor yóbbu ko ci ak texe yóbbu ko ci ak texe moom al maratu saaliha almaratu saalihatu ba léegi mooy al mooy almaratu hiya ummu raufu rahim wa zawjatu lwadud walbintu laatuf xalu waraa kullu say kullu rajulin azim imraatun ginnaaw góor gu baax goo gi am na jigéen ju baax ju nekk ci wetam benn mu nekk yaayam wala mu nekk soxnaam wala sax nag mën naa nekk sax rakkam ndax yaatuwaayu jigéen euh, dayoob jigéen ju baax euh, mën na ëmb lu paase loolu almaratu hiya nisful afdal xam ne ne digg digg ngëneel moom boo ko doon xool genn wàllu ngëneel digg digg digg digg mooy jigéen ju baax ju nekk ci wetu góor góor baax moo tax mu ne azamatu rajulu xiila az min azamati fi janbiha aw fi almaratu azmanu jawharatun nazaat min taajin li takuna zinatan lirrajuli wa saadatan lahu jigéen ju baax dëgg dëgg dëgg ci wetu góor bu baax nee na moo gën a seer moo gën a seer mbaxanaam wurus moo xam ne dang ko waajal ngir danga koo defar ngir waaja ko nee na jigéen ju baax dëgg dëgg bu nekkee ci wetu góor ni nga xam ne euh, góor gi nga xam ne dafa waaj ba jëkk jën mbaxanaam wurus teg ko ci boppam na mbaxana ma di jekk ci moom te it na muy nekk na muy nekk lu gànjaru ci moom dana jigéen ju baax moo raw loolu fuuf ci góor gu baax loolu mooy almaratu jawharatun almaratu azmanu jawharatun nazaat min taajin li takuna zinatan lahu li takuna zinatan lirrajuli wa saadatan lahu loolu nag boo ko xoolee day delluwaat ci xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne addunya mataaun wa gayri mataa'iha almaratu saaliha almaratu saalihatu adduna lépp marchandise la marchandise mi ci gën a seer gën cee gànjaru mooy jigéen ju baax loolu moo tax ngay fekk ci mbindum Sayxul Xadim wataw watan xubilat ma meeg naten rufiat ma zawjatin salahat bi diin yàllahu ak wa zawjatan saalihatan tu'iinu ala tuqaa wal birri yaa mu'iinu nga gis ne soxna su baax moom loo ko loo loo amee loo ko loo rek noo mën a fexey ba am soxna su baax rek jar na ko ndax mooy àddina mooy àllaaxira mooy taarub àddina di taarub àllaaxira mooy texeeg àddina di texeeg àllaaxira mooy sel bi nga xam ne wala raas bi nga xam ne góor gi ci lay jaar ba àgg ci borom tabaraka wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko arab bi waxe ah, loolu lépp un ko xoolee day delluwaat ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon tunkaxul maratu li arba'in li maaliha wa li jamaliha wa li wa diiniha fa asbar bi zaati diin taribat yadaak jigéen boo koy takk takk ko ngir ñent takk ko ci ñent xool ko ci ñent yëf ba ci jiitu mooy des na takk jigéen ngir askan bu mbokk des na takk jigéen ngir ab des na takk jigéen ngir alal des na takk jigéen ngir diine ba ci gën nag mooy diine waswar bi sa ci diin taribat yadoog bu ko defee jigéen ji nga takk ngir diine nag moom euh, mu nekk almaratu salihatu bu àndeek ar rajulu saaliha ñoom ñaar ñooy mën a am na alquran karim waxoon wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi boo ko defee ñoom ñaar moon amee doom rek mu nekk doom joo ne donc ju baax lay doon yoo xam ne juy dimbali lislaam lay doon waaye juy dimbali société bi mu jëm ci kanam ci lépp loo xam ne suñu borom gërëm la waaye moo ci nekk lépp loo xam ne suñu borom gërëm ko naa dañuy taxal ko kon insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw rek ñu daal di continuer jëm soob na suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh مسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قرار